Euh, wax euh, proposition boobu ngeen di wax concerné wul Dakar rek ville yu Sénégal yi am importance yëpp la concerné muy dakaar di Thiès di Guédiawaay di Pikine di Diamniadio ensuite proposition la parce que ko def moo jiite li ñuy wax au conseil des collectivités territorial kuréel googu du kuréel goo xam ne dafay jël ay ndogal dafay xelal président de la république ca balaa ma koy xelal li mu koy xelal dafay doon ay thèmes yoo xam ne dañ koy discuter ci suñ biir commission indi sax ay experts ñu xelal ñu ci mu fekk ne ren première session bi nga xam ne ubbi nañ ko ñu ngi ko jagleel li ñuy wax équité territoriale mooy yemale ci ci gox-goxaan yi ñu xool ne yemale yooyu aussi euh, buñ koy traité il faut que ñu wax ci ni ñuy téye mairie yi. ñu xool ne euh, ville yooyu bañ nañ ko ba tudduñ commune ville lañ tudd Dakar dafa am Dakar dafa am dix-neuf communes am ville de Dakar Guédiawaye ñu def ko ville euh, Thiès ñu def ko ville Pikine ñu def ko ville ndax seen rëyaay ni mu toll ñu ne seen rëyaay ni mu toll ak niñ koy diriger ak li population yi di sénti ñoom est-ce que dinañ ko ci ab est-ce que mënuñ xalaat beneen beneen beneen ndogal nga xam ne dafa am noo xam ne noonu la ñuy téyee dëkk yooyu dëkk dëkkaar yooyu ñuy wax ville nga xam ne weesu nañ commune ba nga xam ne ñañ fa fal xaalis bi ñu leen di jox may fàttaliku ne bu fekkee ne da ngeen di jël Dakar par exemple am na budget boo xam ne mat na 65 milliards pour benn at est-ce que 65 milliards yooyu nguur gi dina mën a teg bëtam ci nuñ koy utiliser ba mu jëriñ ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi parce que souvent kat bu ñu la joxee cent cinq milliards te joxuñ la programme ne nii nga koy defee da ngay am àndance euh, di ko politiquer euh, di ci ut ñoo xam ne euh, suba dinañ nekk say sympathisant wala say militant par boo bëggee leneen ñu jox la ko loolu lañ loolu lañ constaté ñu ne doog est-ce que mënuñ xalaat ñu jox leen statut spécial xam nga fu mel ni Touba par exemple statut spécial la am na yoo xam ne tey bon Touba mun na ko am yeneen commune mun na ko am ñu ne lu mel ni dakaar lu mel ni Diamniadio boo xam ne dëkkuwaay bu bees la ville bu bees la lu mel ni géejawaay nekk ci banlieue bi ak Pikine rëy nañ tolluwaay nañ toll boo xam ne est-ce que dañuy bàyyi rek toujours ñuy wotee pour maire bi koy jiitee ak conseil municipal bu ñu wotee ba pare ñoom ñu jox leen seen budget lu leen neex def ci est-ce que mënuñ fexe ba nga xam ne ki nga xam ne mooy nekk ci bopp bi duñ ko fal mais dañ koy nommer jox ko ay responsabilité wan ko ni mu war a doxalee budget mu nekk au profit de ces des des population de la ville moo gën ñu bàyyi ko noonu. donc da ngeen jàpp ne euh, maire yi nga xam ne ñoo jot a occupé poste de maire de Dakar euh, ni ñu doxalee dëppoowul ak yoon wala boog dafa efficaceul. dafa efficaceul. parce que wax dëgg yàlla boo xoolee euh, doxali ni maire yi coow li moo ëpp jëf ji boo xoolee dakaar maire yi fi jaar yëpp seen seen seen coow li fay coow li koy englobé ak yenn saa yu xuloo yu ñuy xulool ak yi nga xam ne moom moo jiite euh, réew mi mooy ëpp jëf ji nga xam ne moom lañ ko def yow yaa ngi jógee place de l'Indépendance ak yooyu lan la fa mairie bi def pourtant dina euh, euh, dëkkuwaay bi nu mu mel wala boog ni espace bi mel xaw na taaru de loolu yëpp ci mairie bi la mais ñun dañ yaakaar ne munoon na gën a taaru lii ca coow mënoon na gën a néew li fi coow lu nekk muy fii di Thiès di jam ñaajo boo xam ne dëkkuwaay bu bees la ñu bañ aussi ay coow ak xëccoo yooyu nekk fa ba nga xam ne la ñu war a def duñ ko def moo tax ñu def nag proposition li ñu def nag du ndogal proposition lii lañ ci bon doon séentu. nit ñi wax ci seen xalaat ñu waxtaan ci débat ah suñ ci waxtaanee bu fekkee ne loolu mun na am ñu wéyal ko bu fekkee ne mënul am ñu teg ko ci suuf parce que ñun xalaat rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci doon wóoti c'est très bien que yow wax nga ma ne léegi eh, waxtaan ngeen ceeg eh, askan wi ñu jox ci seen xalaat loolu lañ bëggoon askan wi jox ci seen xalaat bu fekkee ne gis nañ ne lii lu baax rek ñu gëstu ko tëral ko bu fekkee ne askan wi aussi d'accordu ci wala arrangé wu leen bu ñu ko waxee ñu tagaat ko ci suuf parce que ñun dañoo xalaat rek waxtaan débat moo ñu ci moo ñu ci dugal. d'accord justement sax ci li askan wi wax ñu bëri nee nañu ne euh, loolu xel mënu ko nangu quoi parce que euh, bu fekkee ne dafa demoon ba antu est-ce que nekkul. Euh, ci wàllu droit ngay yëngu nekkul yi boo xam ne dañ koy def ci droit bi nga xam ne moom la citoyen bi am pour voter pour tànn ka koy jiite est-ce que loolu aussi nekkul problème. ci ci wàllu démocratie Euh, dañ ne franchement il faut que ñu delloo cër ñi nga xam ne ñooy askan wi ñuy tàllal seen bopp ah, di doxalin seen bopp mais foofu aussi il faut nga àgg ci benn degré euh, démocratie ba nga xam ne loolu dina mun a antu mais ñun suñu réew yi waxuma ne amul démocratie am na démocratie mais yenn temps yi aussi il faut que nguur gi dugal loxoom ci yenn yenn kuréel yi pour mu gën a dox teg ci bëtam pour mu gën a dox yi ñi nga xam ne ñoo koy doxal ñoo ñu la fa teg pour mu gën a dox mais boo xoolee ñiiti euh, réew mi euh, askan wee ko fal bu la tànnee dafay mel ne askan wee la fal ci démocratie loolu la ñuy wax démocratie suffrage direct ou suffrage universel direct wala suffrage universel indirect tey euh, pouvoir de nomination bi nga xam ne moom la président am li ko ko may mooy suffrage universel bi nga xam ne moom lañ ko fale donc euh, franchement il faut ñu atténuer loolu parce que ñun ci suñu xalaat bu fekkee ne defoon nañ ko ci ville yi leen la wax ki nga xam ne mooy bopp bi moom la ñuy nommer mais ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo bu nekk ci conseil municipal bi di war a décider ñooñu dañ leen di fal mais dina may quand même njiitu réew mi mu ne na nag léegi comme kii dañ ko nommer programme bi ngeen di def lii lay doon ñu jox leen budget bii bu bu at bi jeexee ngeen rendre compte mais bu boobaa est-ce que euh, maître wàllu politique du ci ëpp doole parce que bu boobaa euh, évidemment euh, président de la république ay farandoom lay faral di jël di leen euh, jiital bu boobaa est-ce que politique du ci ëpp euh, beneen bi mooy est-ce que doyadilu leen liggéey bi nga xam ne xalifa Sall par exemple def na ko fi parce que sur le terrain cela nous montre que euh, population yi bëri na lu ñu doon rafetlu liggéeyu xalifa Sall est-ce que nekku leen un peu pour chercher à dogal boobu franchement xam nga booy dogal nit du tax nga dogal vraiment bi ñu koy def d'abord Khalifa Sall nekkatul maire donc moom fax dëgg yàlla taxul ñu ñuy jël ñu ñuy xalaat xalaat boobu parce que génewul kenn ensuite bu fekkee ne liggéey na fi liggéey bu rafet aussi ñu ñul di ko rafetlu ah di di di di wax ñu gën leen ñaax aussi ñu gën a liggéey liggéey bu mel noonu donc booy def ay proposition nit taxul nga di ko def bu dee nag politique la ñi koy def aussi dañuy politique parce que aussi man il faut que <laughs> mu leer ne réew politique moo koy doxal dégg naa ñu ne waaw lii politique ñu xam ne ñoom dañuy politique de ñu koy wax ñoom ay maire lañ di politique ne ñun xalaat bi ñuy xalaat lañ laal politique moo ko laal. mais anam ko nar a doxalee tam est-ce que mais bu doon forcing la kenn du ko waxtaanee dañuy tëb rek président jël loi wala moo jël décret am na sañ-sañ bi yaa ah, def ko mais comme mu ko ñun ñun ñun ñun ñun wax naa leen ne boo xam ne du ñu dogal. consultation dañuy dañuy susciter débat nit ñi wax mais koo kay loolu moo waral xam ne kon koñ boole nañ ci askan pour ñu waxtaane ko donc li ko dal li ko lal mooy politique mais ñun dañuy politique ñi koy wax aussi dañuy politique ñi ko nangu dañuy politique ñi ko bañ dañuy politique donc loolu nañ ko teg ci suuf affaire politique réew moom politique a koy doxal man bokk bokkuma ci ñi nga xam ne dañu def politique ba pare fu ñu waxee politique ñu bugg sumi seen manteau politique nañu defaru politique dafa baax ñi nekk opposition ñi nekk pouvoir ñëpp ay politique même société civile bi ngay wax ñu ci bëri dañuy politique léegi nag li problème mooy ñi koy def est-ce que baax nañ est-ce que ñu ngi koy defee ci euh, euh, anam bu sell wala doon loolu la ñuy wax mais fii ñëppay politique voilà donc man loolu gêné wu ma. alors euh, bëri na ci ndogal wala boog doxalin ci wàllu politique yu ñuy yu ñuy jëfee te bëri na lu ciy fàtti constitution bi. te constitution bi am na lu bëri lu mu consacré askan wi te askan wi jamono ji euh, bëri na lu ñu koy fàtte ci yenn euh, action politique yi est-ce que euh, le fait que euh, depuis 2012 APR bi mu nekkee au pouvoir euh, ba léegi mënul nekk ci bopp mairie de Dakar est-ce que loolu nekkul aussi motif walla genre euh, prétexte pour indi def proposition bi. mais loolu du du APR rek du du du Sénégal rek du Sénégal rek. Euh, li ma lay wax nii am na déjà ay dëkk yoo xam ne ay dëkk tubaab wala dëkk africain yoo xam ne noonu lay doxee seen euh, seen capital euh, du ay élection mooy fal maire ay district lañ ko def am na Nigéria am na Côte d'Ivoire am na Cameroun évidemment ñun suñu démocratie jiitu na seen démocratie loolu bu ma ko xew waaw xam nga du question yàlla ak ñàkk yàlla mooy gis benn problème jéem ko saafaral loolu la mooy problème bi mais tey euh, li ngay wax ci suñu li ngay wax ci capital yi capital yu bëri tey euh, du parti au pouvoir moo koy moo moo koy gérer lool noonu la noonu la demee parce que capital fu mel ni Dakar euh, bëri na nit ñun ñoo xam ne jàng nañ souvent bu nekkee xale yi bëri nañ fii ca xale xam nga souvent day doon lu ñuy wax opposant ñu ñuy wax ñi yëpp bi ñu nekkee étudiant wala bi ñu nekkee élève musuñ jubóog nguur loolu man dama koy comprendre ah, loolu bu amee aussi dina difficile nguur di gérer capital mais loolu du loolu taxul ñuy ñuy ñuy ñuy wax ñuy wax ñuy ñuy def proposition bi li tax muy def proposition daal mooy xalaat diggante wote fal nit ak président nommé nit bu fekkee ne da ngay wax ci rek ci booru démocratie effectivement bu ñu sañoon képp koo xam ne dafay yore kuréel boo xam ne ci mairie lay doon dañuy wote wote moo lay fal. loolu loolu mooy loolu mooy démocratie loolu mooy dëgg mais bu fekkee ne wote moo lay fas ba pare mu am ay problème il faut que ñu xalaataat beneen yoon bu mun a jaar pour coow loolu mën a am moo tax ñu def proposition bi. d' pour jeexal ci loolu wax ngeen problème yi ngeen xam ne jot ngeen ko constaté est ce que pour askan wi gën a comprendre mën ngeen ñu citer quelque ci euh, problème yooyu tax ba mu pousser leen ngeen def proposition bi. mais yow wax nga ko. Euh, boo xoolee ci ci ci ville yi nga xam ne yëpp ville ay ay ay ville lañ lu mel ni Dakar lu mel ni Thiès lu mel ne euh, Géejawaay wala ay ay kii euh, xëccoo bi dafay tar foofu trop bu élection amee et souvent liggéey bi nga xam ne moom lañu walla parce que yooyu ay ay ay dëkkuwaay yu yaatu la yu rëy la donc dafa am liggéey bu mag buñ ci war a def et puis mu laaj xaalis bu bëree bëri boo xam ne bu fekkee ne juboowuloo ak borom réew bi dina difficile nga def sa liggéey ni mu waree. mais pourtant loolooy def taaru démocratie le fait que par exemple président de la république nekk APR kii jiite mairie de Dakar nekk PS wala PDS et cetera loolu mooy taaru démocratie mais en plus de cela élection évidemment coow daf ciy am euh, jàppante daf ciy am waaye xëccoo aussi da ciy am. opposition dafa baax ci réew. opposition aussi am euh, yenn parti réew boo xam ne opposition moo ko ŋànk man bu ma sañoon loolu day wéy loolu dafay am. loolu dafay taf mais bu boobaa dafay fekk nit ñi xam état mooy lan jox ko cërum institution yi mooy lan jox leen seen cër démocratie mooy lan jox ko cërum parce que bu fekkee ne yow danga nga ne eh, yow bu fekkee opposition nga lépp lu nguur gi def rek da ci war a këpp suuf loolu du opposition bu fekkee ne da nga ne démocratie mooy lu la neex dem lu la neex wax lu la neex def fu la neex dem loolu aussi du démocratie zéro nañ na Sénégal nag loolu moo fi ëpp ca loolu du opposition du démocratie il faut que nit ñi delloosiwaat seen xel nekk des républicains xam li ñi moom ak li askan wi moom xam li nga xam ni ki nga xam ne moom la nit ñi wóolu fal ko cërëm bi ko constitution may ak ñi nga xam ne opposition la li leen leen yoon may loolu aussi il faut ñu jaar ci yoon yu mel nii yoo xam ne effectivement dafay mel ne dañuy wax recul démocratique la mais pour man c'est reculer pour mieux sauter waaw parce que bu fekkee ne danga am sa doom bu fekkee da nga am sa doom mu nekk xale nga di ko jàngal yenn taay nga dumu ko du jàngal danga ko bañ da nga koy yar mais bu màggee ba nga xam ne léegi nag la nga doon def ci moom yëpp sotti na boo ko bàyyee mu demal boppam. d'accord maanaam faw ngeen duma ñi di faral di xëccoo ak yéen ngir wan leen doole daal di jël seen place. non du du du du duma cest à diir que pour pour teg leen ci yoon ne leen affaire bi yoon bi nii la xam nga léegi buñ la joxee alal. nit ñi wóolu la fal nga nekk ci boppu réew bi alal bi nga yore danga nga ko war a delloowaat askan wi liggéeyal askan wi mais du pour yow wala sa politique.